ñi la bëgg te gëm te la raw ñi la safoo dunu daw ñun yaay sunu tiitër sag yaaram ana mbokku Baay Faal yi ana ñi bëgg yu Baay Faale lool daw leen gaaw dem seeti Biram Couture waaw waaw ci màggal Touba 2021 bii génn nañ leen ay modèle yu macha ay laxasaay yu Baay Faale ànd ak jamono te rafet lool macha allah kon daal Birame Couture mooy waaja daw leen daw leen kaaw bu ngeen fa demee am nañ fa ay njaxasu Baay Faal yu macha allah yéen góor ñi ak yéen jigéen ñi génnal nañ leen ay modèle yu bees tàq ci màggal Touba 2021 bii kon daal daw leen daw leen gaaw dem seeti Birame Couture képp ku bëgg a jëflante ak ñoom am ci modèle yu baax yii demal Dakar Médina rue 19 angle 12 Bango le 78 168 42 22 78 168 42 22. Biram Couture, l'élégant fait la différence.